su mënoon a nekk sax Sénégal day day day delloosiwaat peine de mort parce que ñu mel nii peine de mort lañ yeeyoo. ah bon fitna ji ñu teg Sénégal peine de mort lañ yeeyoo. pendaison wala ab xajam xaju Moustapha Diakhaté laa wax de. Mm-hmm. dafa ëmb. toll ci matu mat wi yeex. bi ci des nag mooy nee na 1927 ak léegi defaruñ kenn Touba bëgguma ca. bu loolu lépp jàllee nag ku sa koo xam ne gëm nga ne yow sa ndey defaruwul. waaw ndax bu waxee waa Touba defaruñ kenn moom sax ndey defaruwul gëm nga ne sa baay defaruwul hmm. gëm nga ne defaruwoo yow nooy xàmmee ko defaroo ko defaruwul am gars yi maa leen di jaare bu baax baax gars yi leen abonné di like vidéo bii vidéo bu dàq vidéo bii nii mosuma ko def sama àdduna gars yi dama bëgg ñu dem seetaani vidéo bi balaa vidéo bi dama lay ñaan nga déglu ki ma lay présenté nii boroom xam bu mag la gars ñu dem seetaani 10 secondes après ñu ñëwaat léegi-léegi léeg-léeg nit di woote ne faju na ay wér hmm. mun ma mun nga xam ne loolu moom ay ree sax dara jàpp ndeysaan ndeysaan te bu nit am tawat bu mënti doon mhm. ñetti fan bëri na ca mhm. Mhm. tawat bu mënti doon ñetti fan moo xam wér di xel la wala muy kuy ami rab bi daanu ak tawat bu mënti wala ñu liggéey nit ba mu tëdd mënul jug ndeysaan ñetti fan bëri na ca moom jaajëf gars yi kooku mooy sëñ Omar Mbacke sëñ Omar Mbacke boo ko bëggee jot woo ko si numéro yooyu noonu problème boo mënti am jafe-jafe boo mënti am jàngara boo mënti am woo ko mu saafaral la ko ci nu mu gën a gaawee gars yi dama bëgg ñu jublu ci vidéo bi Cheikh Bara Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Moustapha Diakhaté non ñaar ñooñu xaw ma kañ lañ leen di boole plateau mais plateau bu nar a neex lay doon gars ñu dem seetaani vidéo bi après ñu ñëwaat léegi-léegi gars ñu dem mais yaa ngi wax sànq député yu Pastef fi dañ leen a dàq ci assemblée nationale ils sont membres de parti terroriste ils sont ku ca ku ne ci kaso war a sax dañ leen war a jàpp kaso waxuma ñu jël leen assemblée d'abord dañ leen war a jël jàpp leen kaso yóbbu leen tëj leen tout le monde tous mais di fen rek député yi askan yi ñu togal leen ci assemblée nationale ban askan ban askan fa leen fa mais député yi askan des terroristes askan yi bañu bañu fal wa passé japp xam na defu wuñ ay ay terroristes li maintenant légui leer nañ ci des partis terroristes un parti terroriste ña ca bok dañ ñu wara japp c'est bo dégué may ne dañ ñu wara japp moy d'abord ni leen japp d'abord ba paré ni ñu japp Ousmane Sonko gënal du suñu parti bi atté leen comme terroriste d'ailleurs su mënon na nek sax Sénégal day day délo ci wat peine de mort parce que ñu melni peine de mort lañ yeyo ah bon fitna ji ñu teg Sénégal peine de mort la ñu yeewu pendaison wala dóor bal ñu daanu. dégg naa ci kenn koo xam ne dafa fen a fen ba ñuul kukk. Moustapha Diakhaté ab xajam xaj xaju Moustapha Diakhaté laa wax de. Mhm. dafa ëmb. toll ci matu mat wi yeex Moustapha Diakhaté ne daa yërëm xaj bi yóbbu ko maternité opéré xaj bi fay xaalis bu bari. mais loolu est-ce que du jaamu yàlla ci xaj. waaw na ko jaamu ci rakkam. xaja ko gënal rakkam. c'est vrai vie privée. du vie privée sëñ Muntaxa la njëkk a wax de dama laa wax li mu wax ba pare bu ma tontoo naan ay vie privée de. Ah. lii ba ma ko xamee ëpp na fanweeri at waxuma ko. dama ne dama ne. si dama ne waaw ko wax. dañuy laaj non non non amul vie privée. Ah. moom moo wax ne sëñ ah. Muntaxa da dul sédd rakkam yi xaalis moo tax ñu mere ko. moom mii moo séddul rakkam yi xaalis. koo xam ne yow sab xaja feebar. nga dem yóbbu sab xaj maternité pour ma am doo sa rakk feebar nga seetaan ko mu dee. ah loolu moo ma jaaxal nag. ñi koy dëjal faale woo dëj ba ñëw ndakaaru fii ci ci tëdd fi Moustapha Jaxate Kolla Jaxate moom ñoom ñaar a bokk maire Fall ak Pa Jaxate du ma tudd ay tur kol la Jaxate maga suñ koñ hmm. ab restaurant la yor daan jaay ba daanu gis nga maire Fall mii muy wax yaayam jooju ak la Jaxate ñoo bokkoon benn kër goo xam ne kër gu yëggut ca Touba laa wax ne kër gu yëggut tabax yu yëggut lañ àbb dëkk ca yaayi Moustapha Jaxate ak Kolla Jaxate mii moom Moustapha Jaxate bokk ndey ak baay ñu bokk ca dëkk ca la yaayam gaañoo dara defalu ko ndeyam Cheikh Bara la gis man maa wax mosuma la gis ci état bi. waxuma état personnel wala ay luy personnel problème personnel lan mooy personnel dama ne luy personnel moom moo taxaw ne. parce que gis nga soree ci nit nii non nañ waxtaan na. Ah. dama laa lay taayal li wax. Hmm. dama ne la. Hmm. moom moo wax ne sëñ Muntaxa ay rakkam dañ koy seetaan dañ koy saboté. kon dugg ci vie privée dugg ci vie privée Touba. man sama lépp ma dugg ci vie privée moom kon la jaxate rakkam nga Touba. fifteen defalu ko ko boo ne woon ku ma indi ku ma Moustapha Diakhaté may mille francs ma jox la million kenn du ñëw du may nit mille francs dama lay wax ko la jaxate mii nga xam ne moom moo ma bokk ndey ak baay dafa am ay doom doom yooyu mag ñoo ma maase ñoo fa balandoo ñoo defandoo lépp kenn ci doom yi Kolle Diakhaté yooyu dafa jàng ba am bac hmm. téléphoné Moustapha Diakhaté hmm. ne ko nijaay de am naa bac waaye damaa war a ñëw université Cheikh Anta Diop ma bëgg mm-hmm. fu ma luye mm-hmm. wala foo ma wutal ma fay fanaan pour ma mën a jàng mu ne ko mm-hmm. ba may jàng kenn dimbiliwu ma woon du ma dimbili kenn Moustapha Jaxate ko wax xibaar ku la wax yooyu yëpp ah waay mais nit laaj li li ngay wax dama ne la Moustapha Jaxate maa ngi moom a dëkk Touba xam na ma xam naa ko xam naa ndeyam xam naa baayam xam naa sama ndey xam naa sama baay xam naa jarbaatam jarbaatam yëpp ca tataaye lañ nekk di def ay euh, receleur kees ñii ndékki la ñuy jaay amul kum dimbali ci àdduna moom na dem ci ay bokkam bu fekkee moom kon loolu la. waaw gars yi deuxième partie bi moo des deuxième partie baa ngi ñëw mais damay war leeral tuuti ci Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye dafa nekk kenn koo xam ne Cheikh moo xam lépp moo xam ñëpp euh, kilifa boo yaakaar ne Cheikh Bara Ndiaye xamu ko yaa ngi nax sa bopp quoi Cheikh Bara Ndiaye ñëpp la xam ñëpp la xam gars yi <laughs> képp koo xam ne yaa ngi lebal Cheikh Bara Ndiaye na ko lebal lu rafet ko yow lebal ko lu rafet rek ndax bu lay fay mu rafet ndax Cheikh Bara Ndiaye moo mooy koo xam ne du baale du wan baat loo ko wax mu delloo la bu wis la gaa ñu dem seetaan yi deuxième part bi après ñu ñëwaat léegi-léegi ak Cheikh Bara Ndiaye ak Moustapha Diakhaté gaa ñu dem résumel nit ñi li mu wax ci gàttal ñaawoon na waaye danaa ko wax ba pare pour ñu ah. mën a xam li ma koy tontu mm-hmm. mooy dafa wax ne Touba wateel nañ koo xam ne du seen mbokk ci diine mm-hmm. du seen mbokk ci pas-pas du seen mbokk ci dara waaw daa di ne euh, nag day wane ne 1927 mooy ba sëñ Touba génnee àdduna. waaw la nit gëj a defaroo Touba nee na sëriñ Touba moom 1927 ak tey jii kenn defaroo fa. Mm-hmm. nga xam ne kon Touba sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Muntaxa mi fi nekk. Mm-hmm. maanaam dañ faa nekkoon noonu waaye defaruñ kenn loolu nag euh, amul problème dinaa ci ñëw. Mm-hmm. waaye dafa am loo xam ne ci aspect intellectuel laa koy njëkk tontoo. ba noppi doo ko tontu ci aspect bi mu waxee. su fekkente ne Touba dañoo maanaam pourtant Touba ni ñu watee 2012 ak léegi. Mm-hmm. non la Matam di waté 2012 ak légui mm-hmm. te mosoo dégg mu tuddu wa Matam. waaw Matam ñom ñëpp dañuy and mm-hmm. bokk watel kenn nit. waaw ñi ngi koy def diko défaat élection yu ñëw. pourtant wa Touba ñom ñëpp dañuy and watel kenn nit. mi ngi koy ngagn ci Touba te ŋaññu ko ci Matam. waaw lu tax loolu Moustapha Diakhaté. bu dé Matam sax man nga wax ni ñom ñëpp dañoo and di watel kuñ bokk seenu mbokk mu fa dëkk. waaw Touba nak ni ñi def. Mhm. loolu kuñ defarut. ba noppi mënoo koo def. Mhm. mooy nga wateel nit koo xam ne Moustapha moo wax ne du suñ mbokk ci diine. waaw accord. Mhm. du suñ mbokk ci tariixa. d' accord du mbokk ci dareet. d' accord dëkkut ca dëkk ba. Touba kay ku nit kuñ defar ba noppi. loolu ñu def noonu àdduna lañ ko war a jàngal. kuñ defar ba noppi moo mën a xool nit koo xam ne vision rek nga ko àndeek moom. ak jaar jaar. rek nga nga ko xool ci moom waaye xooloo bokul bokkul ci tarixa xooloo ne bokkul ci diine xooloo ne ci mbokk gi mhm. nga wateel ko ngir jaar-jaaram ak vision bu mu am ci réew mi kon kooku buñ ko defarut ba noppi mënu koo xam mhm. buñ ko defarul rek mënu koo xam mhm. kon dañ ko defar kon ah. Moustapha Diakhaté Touba mënuñu leen a ñàkk a defar ba noppi ñu mën a jël vision boobu pourtant àdduna bi yépp dañuy xeex nit manam guerre civile am pourtant Cheikh Bara Ndiaye pareegul ci mais li Moustapha Diakhaté wax moo dul yoon quoi gars yi troisième partie bi la ñuy dem seetaani ndax li Moustapha Diakhaté moom dafa metti ñëpp nee na Touba defaratuñ kenn depuis jamono Sëñ Touba ba léegi Touba defaratuñ kenn quoi ay sëriñ nekku fa loolu la wax gars yi Cheikh Bara nag loolu lay kaas fu mu dem loolu moo koy metti quoi moo tax muy yàq lu mel ni xamee Moustapha Diakhaté gars yi ñu dem seetaani troisième partie bi lu daax lii moom amul quoi man Cheikh Bara Ndiaye dama kaa bëgg quoi billaay ñu dem seetaani vidéo bi après ñëwaat léegi léegi gars yi pareegul moo ngi ci Moustapha Diakhaté ba léegi. ci bu fekkonte ne waa Fouta dañ ne. Macky Sall moo bokk ak ñun fii la bokk mooy jiite réew mi. Mhm. waa Siin ak Saalum ne Jomaay ci ñun la bokk mooy jiite. Mhm. waa Touba daat ne par exemple Bougane fii la bokk suñ mbokk la fii la juddoo fii la jaar ñun moom la ñuy fal. Mhm. waa Casamance ne Sonko la maanaam loolu mooy indi guerre civile. mais su fekkente ne askan wi mature nañ. ba yow nit ki bokk ci yow te yorul programme bu baax. Mhm. ki bokkut ci yow te am programme bu baax ci sénégalais yi moo la ko gënal. waaw kooku mooy ki ñu defar. Mhm. kon moom li mu waxal waa Touba. Mhm. ak defaru rek moo mën a tax Touba di wateel Diomaye. waaw bi ci des nag mooy nee na 1927 ak léegi defaruñ kenn Touba bëgguma cee yàgg nag parce que amaluma njëriñ. waaw waaye moom loolu bu ko waxee dama koy laaj fu baayam defaroo. <laughs> waaw ndax 1927 mu fekk na baayam defaroo ndayam fu mu defaroo bañ mën ko yóbbu ci néegub sëy muy sëy ba jur ko mhm. bu dee defaruñ kenn kon ku defar ndayam ak fu ndayam war a defaroo 1927 mhm. moom fekk na juddoogut fu ñu ko defaree moom te fu mu mhm. toll naan sëñ Cheikh ma yar jàngal ma ba ma màgg kon sëñ Cheikh mi la doon yar jàngal la xanaa moom bokkul ci sëriñ si bu loolu lépp jàllee nag ku sa ndey koo xam ne gëm nga ne yow sa ndey defaruwut waaw ndax bu waxkee waa Touba defaruñ kenn moom sa ndey defaruwut gëm nga ne sa baay defaruwut gëm nga ne defaruwoo yow nooy xàmmee ku defaroo ku defaruwut motax kat day wax ba lambu tatam ne du sa wor di saga di saga ba saga sa ndey ak sa bay nak saga sa bop mom la musafa def lolu fay ñaaw nañ waxante deug dara mënu ko justifier mais c'est bizarre hmm? waaw ah, bu fekke ken defuru wut touba kay kon bayam lay waxal hmm? waaw ndax bayam mom li wa touba def ci mom bu ci genné mu jeex hmm? ndayam kasalika mom moma kasalika waaw ta xamna ne kiko wat uf ko tuddu ko sax mbacke la sant waaw kawat bayam uf ko tuddu ko mbacke la sante kawat ndayam uf ko tuddu ko mbacke la sante kon ñun buñ defarut buñ defarut mom fu mu defaroo hmm. Hmm? waaw taawam bobu mohammed kiko wat tudd ko mustafa taawam kiko kiko wat tudd ko mbacke la sante hmm. yow li wa mbacke def ci yow buñ ko dinde mu jeex nga ne wa mbacke defaruñ dara kon kay sa bay ngay wax jaajëf jaajëf gars yi bi ngeen seetaanee vidéo bu pare maa ngi di ñaan ngeen di abonné di like vidéo bi mais gars yi dañuy ñëw wax ci li nga xam ne mooy diggante Cheikh Bara Ndiaye ak euh, Moustapha Diakhaté affaire bi fan la jógee mooy Moustapha Diakhaté daa am ay wax yu ñaaw yi nga xam ne loolu la waxoon quoi ci waa tuuba nee nañ waa Touba dañoo war Macky Sall li tax ñu war ko mooy Macky Sall amul lu mu leen defaralul ñu bàyyi ko fa votel ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye nee nañ Bassirou Diomaye fay Moustapha Diakhaté nee na Bassirou Diomaye fay du mbokk waa Touba bokkuñu tarixa bokkuñu ci dara bokkuñu ci dara ko lan moo tax ñu koy votel quoi bàyyi ñu nee ñi di votel koo xam ne xamuñu ko sax xamuñu fu mu jógee xamuñu ban xeet la xamuñu ban tarixa la bokk ñu koy votel quoi. Cheikh Bara Ndiaye nag loolu moo ko métti quoi loolu moo ko métti fu mu toog rek day métti lu loolu noonu. am na loo xam ne sax daf ci yokk woon quoi Moustapha Diakhaté daf waxoon ne Touba bi fi sëñ Touba jógee ba léegi nii. amul kenn koo xam ne waa Touba defar nañ la waa Touba ne Moustapha Diakhaté nee na Touba daanaka booy xool nee na Touba amatul sëriñ quoi mënatuñ defar kenn ndax li nga xam ne mooy xew Touba ñoom lu leen neex ñu def quoi. loolu nag moom metti Cheikh Bara Ndiaye euh, Cheikh Bara Ndiaye nag lim ko tontu mooy euh, état bu doon topp Moustapha Diakhaté wala Moustapha Diakhaté bu toogoon toogaayu état réew mi dina tàkk dina jaxasoo ndax moom affaire xeet lay incarné affaire waaso la incarner comme ni wa Casamance def di laaj sen indépendance ñeeni ci ñom Buko bu ko ñeneen defoon waa Kaffrine def ko waa Touba def ko kon dëkk bi par la force mu tàkk quoi kenn mënu ci dara kenn mënu tee dëkk bi tak nit ñi ñëpp bolo nek si Jamu jubo japp ni ñëpp ay mbokk lañ lolu rek mo mëna am jamm am quoi jamm nek si réew mi ñu bañ di def ay parlo ay affaire lolu mo tax mané Cheikh Bara ndjay ku koy lebal na nga xaar fay bi quoi <laughs> kuñ fay saboor nga mer li nga lebre rek moo baaxul te Cheikh yaakaar naa ne fay na Moustapha Diakhaté borom ba wis ko amul lenn loo xam ne wax amul lu ko waxul amul lu mu ko yeggul ñoo ngi ko ciy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Bara Ndiaye moom dama ko bëgg quoi ndax moom <laughs> bëggul kuy saltel quoi bëggul kuy yàq der affaire yooyu noonu dégg naa sax journaliste bi di ko laajte naan yaa ngi dugg ci vie privée wu jàmbur mu nekkoon ko non damay dugg ci vie privée ndax moom moo dugg ci vie privée wu waa Touba. kurang Moustapha Diakhaté bol-bol la côté Mbacké la dëkk moom xanaa buñ doon wax woorkat dëggantaan mooy wajah de ndax dafa génn xeet quoi yow yaa ngi dëkk bool bu pare wëlbatiku gudi xas wa bol moo tax loo déggul ci Cheikh Bara Ndiaye rek gars yi Cheikh Bara Ndiaye daal gars yi na fi quoi ëpp nag dafa baax ci lax bu daan ngeen lu Moustapha wax tamit ci départ bi dañ wara ci assemblée bu leen nee na bu fekkoon ne dañoo ne ci yeneen dëkk yi quoi dañ leen di rey quoi dañ leen di pendre comme wala ñu dóor leen bal yéen ma gën a ni mu ko waxee. Euh, jamono bi nga xam ne Moustapha Diakhaté moo doon wax loolu Moustapha Diakhaté ñu bàyyi ko muy wax ko neex quoi di rey ay nit diw dañ ko war a rey diw dañ ko war a tëj dégg ngeen Moustapha Diakhaté quoi muy wax man benn affaire moo a jaaxal quoi ci Moustapha Diakhaté lan moo tax quoi ñu bàyyi ko quoi muy wax lu ko neex. Moustapha Diakhaté di wax lu ko neex waa Pastef yi dañ leen a war a rey quoi yaa ngeen dégg Bass Diakhaté ak Moustapha Diakhaté ñoom ñaar xaw ma luñ bokk mais seen xol yu ñuul yi moom xam leer na ma ne ñoom ñoo ko bokk quoi seen xol yu ñuul yi ñoom waa Pastef rek la ñuy bañ quoi xaw ma nag lan lañ jotee waa Pastef yi ku ci wax daal ñii dañ leen a war a rey la ñu wax waa Pastef yi dañ leen a war a rey ñoom loolu mooy seen kii loolu mooy seen wax quoi mais loolu pour lan pour lan ñu bëgg a continuer di wax loolu noonu. Macky Sall di leen seetaan ñoom daal ñuy wax moom conseil la woon sax conseil Macky Sall la woon APR la bokkoon dañ ko dàq dañ ko kajj fale xam nañ ne Moustapha Diakhaté baaxul day jaxase ay xeet di jaxase ay nit affaire yooyu noonu amul lenn loo xam ne da koy wax ci lu baax amul kenn koo xam ne mën na la ko conseil lu baax benn vidéo sax dégg naa benn journaliste di ko laaj Moustapha Diakhaté naan ko Macky nu mu bañee nii Sonko est-ce que nekkul yow yaa tax yaa dox seen diggante naan ko lu muy teg Sonko nii est-ce que du yow Moustapha jaxate yaa koy dox quoi moom ko koy laaj moom conseil la woon mais loolu noonu dafay dafay ñëwaat ci xel yi dafay ñëwaat ci ndax bañeel bi nga xam ne Moustapha Diakhaté bañ na ko Ousmane Sonko xaw ma nag daan na ko Ousmane Sonko defan ah? man maître El man dama jàpp ne day soob rek day soob di xumbal nii rek mais li muy wax eggul ci xolam euh, donte yenn saa yi mu wax wax koy mel ni day bëgg a jooy waaw man dama yaakaar doy soo mais Moustapha Diakhaté li muy wax ci xol bi la koy jëlee nga xam ne paa bi nii paa bu iñaan la paa bu soxor la daray jaamu nekkul si moom daray yiwu nekkul si moom après dañ koy bàyyi noonu quoi mu continuer fan yee gis naa ko mu génn naan opposant bu sax sax lay doon ci ki nga xam ne mooy Basirou Diomaye mais man li may ñaan rek buñ ko bàyyi noonu quoi mooy nekk di wax lu ko neex ko ñi fi nekk nag nguur gi fi nekk nii dañuy bañ coow di bañ problème di bañ gaay naan li fi nekkoon moo fi nekkaat moo tax dañuy bàyyi gaay ñuy xaw a wax lu leen neex ñu bañ leen a jàpp bañ leen a def dara mais loolu noonu du yoon ku leen wax lu mu leen warul wax dégloon ko si yoon ku leen jàdd yoon yéen yéen a fi nekk yéen ay état yéen ay président yéen ay ministre yéen ay lépp koo xam ne dafa jàdd yoon bi koo xam ne non man sax mënuma comprendre quoi mënuma comprendre lii mu demee nii gars yi xaw naa mer trop mais maa ngi jégalu bu baax vidéo bii lañ koy jamale gars maa leen di ñaan ngeen di abonné di like vidéo bi jaajëf gars yi ci beneen vidéo bégg naa leen bu baax a baax